العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله mbokk jullit yi asalaamualeykum xali Ousmane waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ay dara alhamdulilahi rabbil alamin alladi xalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan wa hidayatan lil alamin sayidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi alladina saadul xalifata ajaman wa araba asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam Aydara ñu ngi lay nuyu di la ziyaara fa tabarakallahu di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi seetaan seen télévision bii di 2STV fa tabarakallahu di seetaan seen émission bii di seen suukaru koor di ñaan yàlla subhanahu wa weeru koor wi suñu boroom yàlla nañu ko nangul yal nañu fekke jeexit ba ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye buy jeexit yàlla bu mu fi bàyyi nattu bii nga xamante ne moom la ñuy wax covid 19 yal na ko yàlla jeexal ci àdduna bi yëpp ci barke yonent bi bismillah idara jërëjëf xaali Ousmane ñu ngi delluwaat di waat bu baax a baax waa Kaolack yëpp soxna Kumba Ñang di soxna maam Cerno Dem nga xamante ni sëtu maam Alioune Dem la ca Njaay wali boobu aarif billah boobu di nuyu xalifa bi cheikh alxaaji Omar mi nga xamante ni moom tey moom moo wuutu maam Thierno wuutu alxaaji Tidiane wuutu waa kër ga yëpp fa tabarakallahu waa Njaay Kunda yëpp jàpp Kaolack ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara soxna Kumba jërëjëf yal na yàlla yàgg dëgëral taxawaay bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waaye tafsir mhm. guddi yi defe naa ni mhm. dañu ne woon reste chez vous mhm. nit ñi toog nañu seen kër waaye kër yi alhamdulillahi rabbil alamin am na ñoo xamante ni tey ñu ngi am mbégte ndax gën nañoo miinanteeg seen seeni njaboot gën a miinanteeg seen i borom kër ñii gën a miinanteeg seen i soxna ak seeni njaboot ndax am na ñoo xam dañ doon xëy 7 heures dem liggéeyi bu ñu wàccee 22 heures du ñu miinante daanaka ak seen njaboot waaye tey gënati nañu am temps gën a toog ak seen njaboot waaye am na ci ñoo xamante ni. mel na ni mu ngi xaw a yëngal seeni kër moo tax ma ne sëy ji dafa mel ni lañu waroon jiital la ñu gannaawal ya ñàkk solo nag nga xamante ni mënoon nañ ko gannaawal ñu jël ko rek jiital ko mooy bakken yi la jiital ba tax na tafsir kër am na lu ci yàlla wax gis nga boobu ubbee alquranul karim di gis yàlla di indi ay saar suuratu namli keroog waxtaane nañ ci mu jékki-jékki indi suuratu ankabut mu ne jargoñ bul déglu jargoñ bi mais xoolal leçon moral bi nga xamante ni yàlla dugal na ko ci alquraanul karim déggoo muy wax fee naan mathalu alladina ittaxasu min duni illahi awliyaai ka mathali ankabuuti ittaxasat baytan wa inna awhana albuyuuti la baytul ankabuuti law kaanu yaalamuun mm-hmm. mu ne nga xool xorondong wala kii nga xam mooy jargoñ ni muy defaree këram ak li mu ciy daj yëpp artiste la boo gisee lënd bi nu mu taaroog ni mu rafetee lu ne mu daj ko ci ngir lënd këram waaye kër gi amul njëriñ kër gi taxawul parce que kër gi mënul téye naaj mënul téye tàngaay bu ngelaw ñëwee kër ga daanu bu taw ñëwee kër ga daanu waaye kër googu wax dëgg yàlla du téye sedd du téye dara mu ne waaye kër googu kon mënul taxaw boo xoolee itamit jargoñ dafa am lu ñuy dundee gis nga jëkkër ji bu àndeek jabar ji mhm. bu demee ba jabar ji ëmb jabar ji jargoñ bu jigéen bi day rey jëkkër ji mhm. bu demee ba am doom mhm. doom ji bu màggee rey ndey ji waa kër goo xamante ni bu jabar ji ëmbee day rey jëkkër ji doom màgg rey ndey ji ndax kër googu dina taxaw ndax famille dina fa am non non du fa am kon nag loolu itamit ay junj la wa tilka nadribuha linnaasi wa maa yaqiluha illal aalimuun aalimuun macha allahu ay dara fa tabaraka allahu masalu alladina ittaxadu min duni illahi awliyaa ka masali lankabuuti ittaxadat baytan wa inna awhana albuyuuti la baytu lankabuuti law kaanu yaclamuun sadaqa allahu alazim fa tabaraka allahu comme misaal mi nga ñu indil mm. macha allah xam nga yàlla subhaanahu wa taala lépp dina ci indi misaal pour doomu aadama bi yeewu mm-hmm. day dem ba mu yàgg mu naan afala yatadabbaruuna alqur'ana moo ndax dañ dul settantal alqur'an mm. suñu boroom indi na ay misaal ci jargoñ suñu boroom indi na ay misaal ci xorondong suñu boroom indi na ay misaal fa tabaarakallaahu ci yoo loo gis rek suñu borom subhanahu wa taala indi na ci ay misaal waaye misaal yi pour kan la pour doomu aadama Chérif danga dugg ci lu ama am solo mooy sëy yi biir kër yi xam nga ay nit li ñu naan kër du xat kër du yaatu jikko mooy xat wala jikko mooy yaatu gis nga ñun ñaar bu ñu bokkee kër fa tabaarakallaahu te suñu jikko yaatu mën nañoo bokk benn néeg bokk benn lal day yaatu du ñu ko yëkk waaye bu fekkente ni dañoo bokk kër kër gi yaatu macha allahu rëy lool te ñun ñaar ñëpp suñu jikko xat kër gi yaatuwaay ba du feeñ ndax man ak yow du ñu jóg ci laalante mhm. kon fi ñuy dellu ci alqur bu ci ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. dañu bàyyi la ñu waroon a mhm. moom nga wax li ñu waroon a mooy di xool jikko yi ak yar yi gis nga bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ba naan ida ataakum man na diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu bu ngeen demee ba bëgg a takk jabar xool leen koo xamante ni jikkoom doy na leen diineem doy leen kon waaye bu demee ba ni jigéen ñi yéen it bu ngeen demee ba bëgg a am jëkkër xool leen koo xam ni jikkoom doy na leen diineem doy na leen kon yarba la mm-hmm. parce que sëy li ciy bànneex sërif dafa bariwul mm-hmm. gis nga sëy diggante ñaari way bëggante yi fi ñuy waxantee dañu bëggante ñu mayee leen ñu def seen lin dem yel daanaka looloo ciy bànneex boo seetee la ca des yëpp dara neexu ci kon li ci des yëpp jaamu yàlla la jaamu yàlla nag manu la neex bi qadril kaddi taktasibul maali gis nga boo bëggee dara faaw nga ñemee sonn gis nga gaskatu jamaa yi buñ la waxee li ñuy daj pour am jamaa rek nga xam ne ku sonn di nga am dara ci lu waaye boo gisee ñiy wuti lem pur di ko jaay li ñuy ñam ci ay matti matti yamb man talabal la ali saharal la yaali mm-hmm. chérif am na loo xam ne ku ko bëgg jaamu yàlla gi ngay jiital waaye da ngay muñ mm-hmm. kon kan mooy muñ isbiru muñ leen yéen góor ñi isbiru muñ leen yéen jigéen ñi yéen ñi bokk benn kër gi daan dem te dematu leen ngir lan fi jamono toll tey waaye wa saabiru muñalante leen yow boo muñee ma muñ te muñalante wuñ te ñuy ñaari way dencante man ma yaroo droite yow nga yaroo gauche du sotti parce que bokkuñu ay habitude comme nag bokkuñu ay habitude liñ daan gisante bariwul tëdd ba tëdd la ñuy gisante bu yeewu jotee ku ne liggéeyi tey bu ñu waree nekk ci kër gi vingt quatre heures sur vingt quatre kenn du génn ñaar yii rek moo ñu ciy génne mooy isbiru wa saabiru muñ leen waaye muñalante leen bu fekkee ni jiital nañu muñ ngir jaamu yàlla muñalante ngir jaamu yàlla ndax jigéen saa bu muñee ci jëkkëram day jaamu yàlla waaye yàlla du ko denc ba ëllëg yow mal qiyaama door ko fay fii la koy tàmbalee fay Chérif beneen misaal gi nii jëlal misaalu rab yi rek rab yi nañ ma baal mhm. gis nga muus mhm. sonal gu mu sonal jëkkëram bu ko jëkkëram soxlaa fu ne lay dugg lu ne lay daj door cee jot mhm. looloo waral muus saa bu amee doom ci kër gi ñu jël doom ya ndaw ya def ko ci saaku dem ba génn ndakaaru ca àll ba ñu sànni ngir bañ mu ñëwaat ci kër gi boo ko xoolee moom mooy dem di wëri jëkkëram su guddi jotee bu ñu ko yeewul mooy dem di wëri jëkkëram ngir bégal ko waaye saa bu ñu àndee ba xaj moomu am doom moom ca àll ba lay amee doom waaye dañuy dem jëli doom yi indiwaat ko ci kër gi da ngay gis sax kuy jënd ay xaj di tukki ak xaj lu ne mu def ko dañu téere yi dañuy wax ni loolu rek jàngat la jàngat bi mooy lan mooy ku muñ rek di nga muuñ kon fa tabaarakallaahu li ñuy digle rek mooy ñiy may sëy yi ak ñiy tànn jëkkër ak ñiy tànn jabar nañu bàyyi xel fa tabaarakallaahu ndax saa su ne mën nañu dundu jamono jii ñuy dund mm. waaye liñ ciy génne mooy bu ñu tànnee boroom jikko ju rafet tànn boroom diine bu ñu àndee lu situation taxaw taxaw taxaw sa soxna taxaw ci sawet wet ndaxte nag suñu borom subhanahu wa taala bul fàttali waxoon na ci alquran wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun sadaqa allahu alazim suñu borom subhanahu wa taala nee na bokk na ci xéewal yi ma leen defal uhuh. mooy ngeen jël soxna ci seen xeet nit nit lay takk <laughs> góor jigéen lay takk jigéen góor lay sëyal jigéen ak jigéen lislaam xamu ko góor ak góor lislaam xamu ko mhm. yàlla nee na nag jigéen ak góor bu ñu àndee ñoom ñaar ñëpp doon ay nit yàlla nee na pour ngeen di dalalante la mhm. góor gi di dalal jigéen ji waaye jigéen ji premier rôle am na xam ne mooy dalal allaajeem sa allaaji bu génnee jaaxle bu nee tëll ci kër gi bu yemee ci yow fa tabaarakallaahu nga wax ko wax ju neex mhm. dalal ko bu balaa yàgg dara yàlla may la njaboot goo xam ne day dagg bu mi gàcce yi mm-hmm. te nag jigéen saa bu sëyee ba yàlla may ko doom mm-hmm. doom ju tedd doom ju tekki juy dagg bu mi gàcce yi mm-hmm. lu ko naqari woon ci sëyam bëccëgu kera fàtte na ko shérif bismillah moo tax dañu war a xam ni kenn deful kenn dara lu waay def rek boppam la ko def xoolal jigéenu jargoñ bi ba mu ëmbee la rey jëkkëram waaye ba doom ju màggee rek da ko rey kon dara génnul sa bopp lu waay def rek boppam ba ci jigéen ji dañu ne kon ku ñulug sa jëkkër looy def da ngay yekk sa doom waaye nag yow góor gi danga xam ni sox si na sii ñu la jox lu ñu wax ku la jox boppam ba mu jeex loo ko fayee lu dul sa bopp war nga ko kon nag yaako ko war a muñal yaako ko a dimbali yaa ko a jàppale kon wa jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan kon yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli sutura tafsir ñu ngi fiy jaarewaale di ziyaara bu baax Mouhamed euh, Kabango mhm. moom Jibril Njoogu Fall mhm. maamam ja moom lañ ko tuddee moo nekk distingo macha allah mooy télé bi kaye yi nga xamante bëgg diine la ci xale yi di jàngee ku bëgg diine la te lu émission suukaru koor mhm. day ñëw taxaw ne dinaa jël sponsorisé leen jàppale leen waaye nag alxaaji abdallah fall mooy ah, nijaayam waaw moom mooy nijaayam tabarakallahu wallahi dëgg la daje naa ak sëriñ Pape Malick si ci conférence société Kër Damel yàgg na at yi ci gannaaw mhm. mu ne abdallah bi mu doonee xale mhm. la ko yàlla xiir ci bëgg diine ay julleeg ay weer nag ay sijaada mu ne abdallah bi muy lu ndaw la yàlla mhm. dogal mu bëgg loolu kon nag moom mooy nijaayu fa tabarakallahu chauffeur Seydina Mouhamed moom chauffeur Seydina Mouhamed wallahi dëgg la kon nag Mouhamed ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax di nuyu tamit ay bàjjanam ñoom Adja Koti Fall di nuyu ñoom ñëpp nag fa tabarakallahu kër ga fàttewuñu kenn yal na yàlla sàmm yal na yàlla aar suñu yaay soxna faat Seck duñ ko fàtte mukk Baye Jibril Njoogu Fall duñ ko fàtte mukk duñ leen fàtte mukk yal na yàlla dolli yërmande ci ñoom bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaali Ousmane kon ba suba ak jàmm incha allah bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhim sibtayni a'laami lhuda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fa hum saadatuna ahlul makarimi wan nada xaali Ousmane mbaa indaale nga sama ay dara waaw macha allah indi nañ ko mu ngi nii très bien macha allah yal nañ ci yàlla musal amiin yow moom muccal rek muccal yow bu la dara dal defal defal ci ñëpp wér waaw wéral peleg na ñëpp wér macha allah yow nag da ngaa xiir ay dara waaw ah defal tuuti rek eh. xam ga yow ni nga mel noonu ngay maye waaw xërërëri yow moom da lool waaw waa ji nee ne lan xërërëri baaxul waaw macha allah yow sax sa bos baax na moom <laughs> ah, baax na macha allah yàlla yàlla barkeel li ci <laughs>